bismillah nafa li xayrillahu fin dakaaru kulla adan li jarrahul makkaaru ida dakartu dalika almabita wa dalika alamira walthubuta taarat ila aljihadi bil armaahi nafsi walakin zabba an ilmaahi bi nga suba di ajjuma di bis bi njëkk ci rakk ji gàmmu la war a ci gaal gi wara dem ci réew yoo xam ni dako ko daa dégg rek foofu ci gaal gi ñu bari fekk nañ ko fi ci muridi bokku na ci maam cheikh ibrahima faal an nak naqar mit mitti sëriñ bi tàgganteeg moom mu dellu moo tax mu naan wa mumtali'a khaylulatan ma'al mabiti bil fi'a fi في فلكه muidu مريده أي فتى wa waadaa al murida thumma rajaa ila al bi xalbin wajiha nee na itam ci biir gaal gi la ko sunu boroom xamale ni yaay jëwri ni yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam allamani rahmaanu fi safina bi annani xadimu sil madina am na ku ñuy wax duudu sekk wax na sëriñ tuubaa ba tàyyi ni ko kilifa gi nekk fii ku yees la koo xam ni day door a ñëw boo ko xamaloon sa mbir dana la lijjanti te kon doo dem ba sëriñ bi jël xalimaam nar a def loolu sunu borom waxanteeg moom ni ko da ngay jël sa xaajo di ko jëmee ci kudul man nee na mu bàyyi ko waaye téewul duudu sekk moom di wax rekk ba mujj sëriñ bi ni ko loolu mënta nekk moo tax mu naan wa talaba lasil amiru arsala mahal xadimi naasihan an yursala barawatan ila amirin xadima min ardihim wa maala fumma nadima summa mahal xadimu ma xad kataba summa lahu xuutiba samma biktuba wa kataba xasidata almaqbula li dikri man yuri bihi sabila Sëriñ Tuubaa mi ngi jóge Dakar bisub gaawu ñaari fan ci rakk ji gàmmu gaal gi mi ngi téere Konaakiri bi gaal gi téré la am benn saalum saalum bu dugg ci biir nuyu sëriñ bi ni ko dama dégg ñu ni dañ lay yóbbu gabon ma di la siyaar si tey sàkku ab dénkaan sëriñ bi ni ko foo man di nekk xamal ni yàlla rek mooy buur amul benn buur bu dul moom ku jublu ku dul yàlla dana dem bis ba xam ni yàlla rek mooy buur ku jublu yàlla ci lu dul awe ko ci muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam dana dem bis ba xam ni Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam yonente bi yonente bi yàlla foofu la tàggoog moom moo tax mu naan hadiyati safat la daa konaakiri bil lil mustafal maaxi bila manaakiri hadiya jooju muy wax sell na fa konaakiri nee na mooy xamal googu mu xamal salum salum bi maanaam laa ilaha illallahu muhammadun rasulullahi sallallahu taala alayhi wa gaal gi déqi wuti karam basa sëriñ bi nee na bi mu duggee ci biir la gis koo xam ni am noon la mu tàmbali di ko wax kàddu yu ñaaw ne tuut lu mel ni luy riir ci ci biir machine bi ba ni gaal gi àggi karam basa kenn ni déggul li muy wax bañ àggee la wàcc moo tax mu naan asaba anni llahu fi karam basa xablu mubarisi wa anni xal basa yàlla sunu boroom demal na ka doon léewtoog man fa karam basa xal basaa mooy na bu na gaal gi déqeeti wuti daaw me sëriñ bi nee na booba yoroon na benn biteelu misk mu génne ko bëgg koo sotti ci téeréem ak yéreem ñu ni ko sànni ko mu sànni ko ci géej gi bi gaal gi teeree daaw me am ñu bari ñoo xam ni dañoo déggoon ni mi ngi ñëw taseeg moom foofu ku ne nuyu ko jox ko biteelu misk moo mu naan daani rahimu hinda daawumi lahu bima aghna ani tasawumi ginaaw loolu la gaal gi deqi wuti libreville fekk na itam gouverneur bi nekkoon sénégal waxoon na kay fete woo mbiri sëriñ bi foofu ni ko bu agsee nu ngeen mën a def bam faatu baax na moo tax bam agsee lañ njëkk a def mooy gas am pax ba mu xóot ñu tàbbal ko ci bañ suulee ba noppi dikkaat fekk ko fam nekkoon moo tax mu naan radama rabbi ma aduwiya xafar li darari wasaana ni aman kafar sunu borom mabbu na pax ma ma samay noon gasaloon ngir lor ma ñu daal di ko yóbbu ci tefesug làmbar na gi nga xam ni diggam ak liibar wiil deux cent quarante six kilomètres la ci li sëriñ Mouhamadou Mahmoud Niang wax ginnaaw ba mu fa demee ba natt ko la man na googu la taxoon ñu yóbbu ko fa mooy àll ba daa lëndam lool te njott ni rab yi danañ ko lekk foofu am na fa juróomi at nee na taalif na fa xeeti taalif yoo xam ni kenn mësta gis yu ni amee njariñ fa suñ boroom ak fa yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci juróomi at yooyu laa mel ni ab jant ci foofu ci libar fa la soldaar si gise woon ahlu badrin te loolu li ko waral dañ koo boole woon ak soldaar yoo xam ni seenu melo daa bon lool ñu di ko def lu ne ci këru àdduna di tux di ko xër saxar si di njaalo fa kanamam ak di saw mu koy laal lépp mu di ko muñ ba benn bis mu génn di julli ci fu xaw a sori quartier ga ñu dikk fekk ko fa gis leen ñu kaalawu wër ko wër ci ay fas loolu waxtu suba teel la ñu tiit mënuñoo dem mënuñoo ñëw taxaw ba gisatuñ lenn ñu door a dem wax nañu seen kilifa gi leen jiite da leen a wax lu yàgg-yàgg bu kenn nettali lii ginnaaw bi sax woo na sëriñ bi di ko laaj naa ko ndax amoo ñoo xam ni boo doon xeex fi ne dañ leen a mën a dimbale waaye lu mu wax sëriñ bi mel ni ku ci xamul dara ni ko ñu mel nan ba mujj bàyyi ko feeñu ahlu badri nag ci bërëb yu mel noonu mësta am wenn wali yu itam mësta am loolu moo tax sëriñ bi di ci sant yàlla lu bari nee na yasara lil muna la daa lii bar wali maa xaada lii maa xaaba an kulli wali lii xaada ahla badrinil usuuda man zahal waashiya wal xasuuda ba tey nee na laxad tabayyana للفجار كلهم كون الكرام معي جيشهم خانوا إلا يجاء رجال الله والكرماء وقت الجهاد وفي الأعداء إتقان جساهم الله خيرا لا يفارقهم كما بهم خاب كذاب وسجان بتينينا زمامي بأيدي الجند داروا معي لدى ذوي الجهل وفضلي لعونا من العلم ila nasrina qad saarau ma xuyulihim wa xaafal ida minhum wa maalu ila salam sëriñ bi mën nañu koo laaj ñooñu malaaka la am saxaaba ya mu ni malaaka ca lañ ak saxaaba ya ñu ni kon ndax yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam àndoon na ca mu ni moo doonoon seen njiit ginnaaw loolu lañ ko yóbbu maa yomba mu am fa ñaari at ak i weer maa yomba itam bërëb bu doy waar la fa la wiir wiir nekk géejam googu itam wax nañ ni daa doyoon waar lool waaye tiiwul sëriñ bi taxaw ci wetam naa ko li yashhad bi kawni abdaman yaxfiru zanba wa kawni xadimal mustafa baxra ma yomba wa lishhad bi anni laa udaahinu mushrikan xalilan xabiban lillazi karamal janba ayaa baxru waxid laa tusallis fa rabbuna taala xani tatliisi akrim bihi rabba fa kun la turabin musbidan min maqaafatin min allahi washhad annani abduhu sabba seedeel ni man jaamu yàlla laa tey jëwriñ yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam seedeel ni duma ànd kuy bokkaale yàlla mukk te xaritub yàlla laa fasa doon yow géeju maa yomba wéetalal yàlla te ko bokkaale ndax yàlla kat tedd na wëlis di ko bokkaale del baj baji tey fuur ngir ragal yàlla te seede ni man ab jaamam laa bu ko sopp ginnaaw loolu lañ ko yóbbu wiir wiir foofa nag mi ngi ci diggante maa yomba ak kabinda gi nga xam ni mooy pooru Angola ak kilo wiir wiir nag fu raglu la foo xam ni kuñ fa mas a yóbbu saw fi dana dem tey diggante bu gàtt rab lekk la waaye sëriñ bi daa ni foofa da yokk yokku wax nañu ni dañu sàmba lawbe bañ fa ñëwee fii de neex naa jaamoo yàlla ngir gërëm gum gërëm dogalub yàlla ji yàlla bi Cheikh Sidiya nee na ci sëriñ bi laa taxjubul laa taxjubul asbaabu anhu xaqiqatan intaaha fi zulumaatiha mantaaha yarda isaa jaratil umuuru musalliman ilman bi anna ilaahahu ajraha lu yàlla dogal da koy neex ngir xam gum xam ni yàllaa ko dogal ndax sabab yi dañ ko dul yiir ba du mën a xam dëgg-dëggi nemmeelug sunu boroom weer wii nag sëriñ bi yàggu fa wax nañu ni gaal gi ko doon yóbbu moo ko njëkk a dellu si loolu di kiimaan gu fés sëriñ Tuubaa mi ngi nettali ni bi nekkee ci géej gi am na wenn waxamaane wu bokk ci ñoom wu sa fekk wu ko masa fekk fi muy binde yor jaasi ju ñaw di ko wëndeel ci sama bopp naama yaay ahmadu bamba ma ni ko waaw mu ni ma moytuma sama maam raykatub ay waliyu la te man maay ab satam ma daal koy joxañ sama xalima gi gëdd ko mel ni ku koy song ni ko doo sa maam te du ma ña sa daan rey mu tiit daw jëm fa ma joxan xalima ga ba tey sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaar lawoo mi ngi nettali ci waxinam wu neex woowe ni bi ma nekkee ci géej gi am na bis kenn kilifa gu bokk ci ñooñu war a ñëw ci dun bi ma nekk nit ñi tàmbuli di bale yoon yi ak di samp ay raaya di ko xaar bi mu agsee man la njëkk a laajte ñu wax ko fi ma nekk mu ñëw nuyu ma jaar ci sama tur tuddaale sëriñ tàllal loxoom bëgg maa nuyu ma tàllal sama loxo di ko bëgg nuyu dégg kàddu gu mel ni ak dënn ci man ya ayuha lasina amanu inamal musrikuuna najas sama xel daa di muuru ma daa di xëccaat sama loxo xëcc gu tar ba mu xaw a mel ni ku deltu ginnaaw xaw maa sori taxaw lu yàgg mel ni kuy xalaat ci man loolu lépp man maa ngi bind ginnaaw ab diir mu woo ki koy waxal wax ak moom lu yàgg mu daldi ñëw ci man ni ma kilifa gi mi ngi lay nuyu di la xamal ni jërul ngay am njàqare ci moom ndax moom bañu la bokkul ci ñi la génn sam réew bu sañoon sax nga dellu li tax muy sonn ci yow nii di la njëkk a nuyu si daa am benn xaritam ci sa mbokki Sénégal yi moo ko yóbbante woon ab nuyoo ci yow ndax nee na dangaa bokk ci ñum gëna sopp looloo tax ma ñëw ci yow du leneen ma ni ko nee ko loolu ma def defuma ko ngir ñott ni dama bañ mu dem wax ko ko waaye waaye feeñalul genn soppi ko ba mu demee ba dal fa muy dal lañ ni ma teral ko fekk booba yor naa keesu miskit mu suu suukar ma yónnee ko ko mu bëgg lool sant ma ca waaye lu mel nii ku ko defoon ngir feeñal ak njàmbaar mënta ñàkk mu lor la waaye ndigal du ànd ak lor sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaarloo mi ngi nettali ba tey ni yóbbu lañ ko ci yoon wu xat boyal aw nag wuy songe ci kawam ñépp taxaw wër ko njott ni day dal ci kawam bi mu ko jubee daldi naaw mel ni lu ami laaf muhammadu abdullahi alawiyu boroom alminahul miskiya fi siiratil mbakkiya nee na loolu ci biir gaal gi lawoon woon nee na ci géej gi la daanu kenn xamul ci moom dara ba tey loolu la sëriñ bi da wax ci jasaawu shakur laatuuf naan wa tafaqa ana baqaratan wasabat ilaya wa kullu waxidin yadxaku wa yasunnu annaha tankabu alay wa taarat albaqaratu ka anna laha aññaha bi isni man intaxama lii minhu wa fadiha wa zakatu laahu naalik suma shakartuhu tabaraka wa taala ala dalik loolu la abdullahi salim di wax ci wayam woowu bikrun min al baqari al ahliyi tairatan fil jawwi hatta tawaarat fawqa tayyaari sëriñ Tuubaa xaadalawu lawum maxtaar lawoo mi ngi nettali ci yoonu géej gi nee na am na bërëb boo xam ni dafa yàgg lool ba mujj bakkanam mel ni da cay yuqat di ko jàmbat waaye jàmbat googu mu doon jàmbat rek ci la ko suñu boroom same ay xorondom yu bëri te rëy ñu koy lor mu xam lii bakkanam moo ko ko teg wa ma asaabakum min musibatin bi ma kasabat ak aydikum mu daal far njàmbat googee ci sant daa na saxtu bi shukri sikaayatan fala asko loxo durri wa durri afala